ndax li ñi wax taal bu yàlla taal ci sànniwul mat mëno ko fay wan pak ñaata at bo ba mu génné ba tay ku nekk ngi wan pak wan pak ku ko bëgg defal dara sax nit jaar ci suuf ne ko bu ko defal te bo ba tay mi ngi dundu mi ngi dundu yalla ngi koy wërsëgal li ki kenn du ko gis ba yéena ko sarax mi ngi dundu mi ngi mi ngi lek mi ngi naan mi ngi tëdd fu baax kon tey ngeen a noppalu ci mbiru wan pak ki yalla ko yalla ko def nu mu mel nit mënu ci dara soxor mënul ci mom den booboog léegi ñoo ngi am suñuy show ñoo ngi sant yàlla xëy na musique moom jàppale da cee am waaye ku ko ci mënulee jàppale ngir yàlla toogal sa boor léegi fans One Pac yi ñëw fees dell bunt manjaay ku ñëw ñu lay fayeeku ñu lay fayeeku ticket ba ñëpp mer ñëpp ne ko yow yaa ngi bind ci ci internet bi ne ko dangay free show ba ñu ñëpp ñu ñëw ba pare ñu ñëw ba fii ñu ne fayeku ticket xaw ma 200 xaw ma 150 ñëpp mer ñibbiwaat One Pac mer ci loolu jour boobu la One Pac ni ko man doo yàq sama carrière ni ko doo ma dugal ba ci biir ba pare di ma def yii di fayeeku tickets léegi sama fans bu ñu demee lan la ñuy wax nit ñi naan One dafa commencé daf ñoo woo free ba pare dem di jaay ay tickets ci bunt bi li tax ma génn tey affaire Lamine Thiam affaire Lamine Thiam moo motax mo génn affaire stade ndax man commencement ba fin lepp dama ko fekke ndax Lamine Thiam dafa bi commencé dafa ne ma ñewal tok nga fekke lepp ndax yaay jabaram lepp commencement ba fin ba koo fekke di ñaan tamit nit ñi légui sa bu ma génnee wax ñu naan jabar wan Pac waaw lan motax muy génne di wax nangam ak sangam damay and ak wan Pac fekke lepp motax te tamit du ma nangu One Pac tàmm na comme buñ ko waxee dara mu mer génn wax saaga wala dara ñu naan waaw dafa dofa ku ko jàppale mu liiwa ku ko jàppale mu leer dëgg gi dañ koy wax nañu waxante dëgg Lamine mag la Lamine bu demee ba am osé génn naan dafay tontu man man dama waaru ci yàlla sax Lamine Thiam bu osé génn na dafay tontu naan One Pac ne One Pac naa ñun depuis ñu jël stade bi ak moom kool bu nekk kool jóge na fu nekk naan ah yéen dugg ci affaire Lamine Thiam seddoo bi lañuy xaar boobu ba tey paak bu bëggoon a génn live maanaam ko déedéet doo génn live doo laayfal Lamine Thiam xew rek génn live doo laayfal Lamine Thiam ndax Lamine Thiam benn mag la ñaar dangay xool ñi bi affaire bi amee ñi génn ñi ñi doon wax naan ñu yéen a dugg ci mbiru Lamine Thiam ñoo ngi xaar séddoo bi ma ne ko dangay sóoraale nit ñi ñi la doon wax loolu waaye Lamine Thiam amul leen lu muy def mu naan dafay ose di génn di wax man nag dinaa wax sama aqulaay taalaay commencement ba fin xam nga pag bu génnee di wax sax moom dafay dafay nekk bu laale fii laal fe do ngeen comprendre man dama leen di wax pour ngeen comprendre borom nopp yu baax yi lay waxal Lamine cham ñaata carrière la yàq yàgguma fi de maa fi maa fi bëgg am triees biñu joté affaire bobu ñepp doon wax ku nekk di ñu woo naan ñu yene duggu ci mbiru Lamine cham yene duggu ci mbiru Lamine cham mané Moussa fatta sa nopp yi gumbal taxal luma comme ko dem ngeen ba jëflanté ko nañ dem ba ci né yow du ko defanteeg yow nañ dem rek ñu xool Lamine Thiam bi Adama Barrow gañee ñu dem Banjul Moussa dafa yéeg way foofu xumb neex fekk moom moo doon yéegal artiste yi moom laata musaa moom sax woowul musaa Ali moo woo Moussa musaa yéeg bi Moussa yéegee way fekk moom mu ngi nekkoon ci suuf di xam lan la doon lijjanti foofu bu Moussa yéegee yëngal public beeg yooyu mu daw ñëw fekk ko ci kaw mu lëng ko daan na ko ah yow de sama jarbaat nga dinaa la boole ci sayfon bi ak neera Malick bi daan na ko man sa nijaay àqan laa Moussa ne ko man de lenn dongu de laa bëgg nga defaral ma stade nga tegal ma stade bi mu ne ko kenn du am kuddu di lakk mom mi ngi nan yaay musa moo na ko am kuddu du lakk moom moo ne am kuddu di lakk man sànni jaay la dina la teugal stade bi dan nako bu suba jox ma sa nëmba après man dina la wo legui biko wan pak joxe nëmbaam ñu xey suba bo fekk na ñu xey suba mu wo wan pak ni ka fan nga nek wan pak ne ko man maa ngi bakkaaw mu fekk ma ci rafi rafi ki defar billboard mu ne ko fekk ma ci rafim ma jox la avance su ne neera Malick bi xaw ma avance su sayfon bi bañ ko fa fekkee mu ne mu ne rafi wan pak mii sama jarbaat la te dama ko bëgg a teg nee na naa ko tegal stade bi te ki dafa nit jàppale dinaa ko jàppale tegal ko stade bi yéen ñëpp na ngeen ci dugal seeni loxo ba rafi ni ko waaw jour boobu mu ne dafa bëggoon ñu indi ñu rek présente ñol rafi indaalewul xaalis mu jël 200 jox ma ko ni ma am sama sama sama goro paase lii jox ma 200 ni ma am sama goro paase lii après ñu tegaat ci ñaari fan mu woowaat wan pak ni ko déedé dafa ni ko woon tey indiwu ma xaalis waaye suba dinaa la woo nga fekk ma ci stade bi ndax damay bukk stade bi ci ay boor ay booru wan yooyu mu woo ci bëccëg mu woo woo wan pak ni ko fekk ma stade bi wan pak ànd woo ma ni man ñëwal ñu dem stade bi ma ne ko man damay togg ànd ak Daddy Rings mu ànd ak Daddy Rings mu dem ba mu demee mu jox ko xaalisu avance su Néra Malick ba pare def loo ko vidéo vidéo boobu xam naa ne war ngeen ko gis ci internet bi ndax wan pak mu ngi jàpp stade bi yëpp daw ko ba sonn ba ñàkk ñëw mu naan ko mm. di ko filis noonu naan ko lan lañu wax mu naan ko juun foot juun fóot ndekete moom bi mu jëlee stade bi jëlu ko pour pour pour juun fóotu One Pac da ko jëloon june foot pour làmb yi mu doon tëgg da ko jëloon pour làmb ji léegi mu ne mu bëgg ci tëgg làmb ji bëgg ci tëgg show One Pac xam naa waa stade bi ne ko déedéet mu ne mu mu mu ne One Pac Cheikh Ndiaye de moo ma moo lay jéem a xeex ci stade bi te Cheikh Ndiaye yàgg naa dem stade maag Moussa mi su ma Moussa ne dem stade ak Moussa Cheikh Ndiaye danaan ko lan ngay xaar pour ñëw ci stade bi ndax yow yaay doomu Bakaaw bis boo fi ñëwee ci yow lay gën a yomb yow àndal ak partenaire rek yow laay xaar moom mu walbatiku ne Cheikh Ndiaye moo ñuy xeex ci affaire stade bi. léegi ñun boobu fekk na koor gi mi ngi jub si ñoo ngi war a dem ñun koor Sénégal lañuy dem di wooree ñoo ngi war a dem Sénégal woori ndax wan pak dafa ne kii bi koor gi du laal musique léegi koor gi laata ñuy dem laata ñuy dem ci ko Sénégal dem nañu ci Maroc fekk mu wooñ ne nañu dem ci Maroc mu présenté ñu Maroc bu fekk ne Maroc mu ngi door ñëw ñu dem mu présenté ñu Maroc Maroc génn ne moom pare na pour jàppale woon pak liggéey ak moom tëgg ñu tëgg benn son bis boobu léegi saa bu ñu ñëwaatee wan da kii danaan maxoog danaan pareegul ci bit bi saa ñu ñëwee wan kii maxoog na parewul ci bit bi biñ demee ñu def di dem Sénégal biñ demee Sénégal ci la ci la champion sound génne benn flyer yónnee ñu ko jour boobu sax Viper woo na wan pak daal ne ko yow lan moo tax ngay jël sama date wan pak ni ko man lan laa xam ci sa date gisoo xanaa vidéo bi ma def ak champion sound ñun suñu vidéo def nañ ko bu yàgg xanaa woowoo man sampiyon moo defar flyer bi yónnee ma ko xanaa woowoo champion mu ne man woo naa champion waaye champion génnee na ci boppam nee na yow yaa jël date bi champion biñ ko woowee mu ne ah moom booy bi woo na ko waaye dafa ne ko waxal ak One Pac nangam sàngam ñu jóge ci loolu ñu dellu si waat Séné dellu si waat bi ñu dellu see Gambie fekk na moom xaw ma ban dëkk la dem ñu toog xanaa lu yàgg billboard yi génn ba wan pag ne ko waaye yow champion lan moo tax billboard yi mënul fexe ba génn mu jox ko nëmbar Rafi ne ko dama waxal ak Rafi Rafi fay naa ko ba mu mat waaye moom mooy nekk di da di la dawloo ci affaire billboard bi xëy na boo waxee moom dina kii ba wan sax wax ak Rafi ba ñoom ñaar ñu jote si kooku daal di ne ko bul ma yàkkamtiloo di ma woo bis bu nekk te dama lay sarax billboard bi ndekete kooku dafa may li bis boobu li ñu woo woon ci bureau kooku kooku looloo tax moom it mu may ñu billboard yi ñun xamuñu ci dara ndekete moom fayul billboard dañ koo may billboard mu dem jaxasañoog Rafi tamit daan ne Rafi da koo fay ba pare nañ taxaw nañ dem taxaw Rafi pour mu jox ñu ko ba Rafi yamale ñu daan ñu yéen daan na wan pag yow dama lay sarax billboard donc nga bëgg di ma carré carré bis bu nekk kooku nag tamit ne ko champion saamu daf laa fay ba mu mat saaga rafet ni ko yow champion sound daf laa fay ba mu mat kon buñ waroo wax loolu champion sound ñu jógee ci loolu af ay lettre Africell yéegi yooyu tamit mu ne moom yóbbu na lettre Africell waaye waaka jaan dafa ni ko duma la jàppale ndax lan moo tax ngay jëlal One Pac stade bi jaxase tamit waaka jaañ ak One Pac ba waaka jaañ ak One Pac lu nekk mu wax ko waaka jaañ te fekk na moom moo ko jaxase waaka jaañ ak wanpak ba tan xadi tan xadi sek ba directrice su mom mom moom moo wax ak wanpak ni ko yow sama doomu baye nga ta waaka ku bax la tamit manoko waaka ku bax la ci yow lu nek waaka show bu da daka ciy dugal showam bu nek waaka daka ciy dugal show bu Africell bu nek mom mu dem japp wanpak di ko jaxaseeg waaka jaay ñu joge ci ci lolu ñu dama ci benen studio rakot fawat ñaari ki li mu naan paas yi moo ñu koy jox ak nangam ak sàngam bu ñu joxee benn yoon paas ndax dañuy paas ba mujj gi ñu ne ñun dematuñu studio ndax daf ñuy jaabantaloo suñu demee ñooñu naan bit yi pareegu da fekk na moom moo leen dul fay moo tax ñooñu daañ ñu këyitloo mujj gi maanaam Moussa man du ma jël xaalis bi di ko paasee di dem studio bis bu nekk te duñu duñu record waxal ak moom na lay jox paas te lu ma ko la jox na ko bind bu boobaa bu ëllëgee ñu génnee ko ci ci li ñuy génnee ci bu toogee benn ay one week wala two weeks ci la ñuy woo daan ne dem leen fenn ñu jox leen fa thousand thousand dalasi si la ñuy jox buñ ci paasee dem paas ci dellu si mu jeex tàkk ñu dem mu ne da koy defar road show free show free show bi ndekete mbër yi ñoo doon def seen jàkkaarloo li ñu jël podium, bi li ñu jël euh, xawma stage ñun pëjom la ñuy wax li ñu jël pëjom beeg manjaay dafa def seen jàkkaarloo mu ne leen bu ngeen jàkkaarloowee ba pare ma ma comme que podium baa nga foofu ma def fa la one one pack free show léegi fan su one pack yi ñëw fees dell bunt manjaay ku ñëw ñu lay fayeeku ñu lay fayeeku ticket ba ñëpp mer ñëpp ne ko yow yaa ngi bind ci ci internet bi ne ko da ngay free show ba ñu ñëpp ñu ñëw ba pare ñu ñëw ba fii ñu ne fayeeku tikke xaw ma 200 xaw ma 150 ñëpp mer ñibbiwaat. Wampack mer ci loolu jour boobu la Wampack ni ko man doo yàq sama carrière ni ko doo ma dugal ba ci biir ba pare di ma def fii di fayeeku tickets léegi sama fans bu ñu demee lan la ñuy wax nit ñi naan Wampack dafa commencé daf ñoo woo free ba pare dem di jaay ay tickets ci bunt bi ci la ma woo ni ma man wanpak ni ma kii dootuma wax ak moom jour boobu Wampack dafa mer ba laaj laajal ñoom a ñi nga xam ne ay ay ay ay dijeem la loolu ñoo doon calmer One ñu ne ma naa wax One Pac mu kalme ma ne ko lii tamit pour lan woo ñu ñu ñëw ak ay nit ba pare ñu ne kenn du dugg na ñëpp jënd ticket pour lan jour boobu la One Pac ne dootul waxateeg moom nangootul wax ak One Pac ci téléphone One Pac ko ko ñoom ñaar ñëpp ku nekk bole ko moroom moroomam man la doon mujj di waxal bu ñuy dem télé man lay woo ni ma dem leen télé nangam dem leen télé nangam dem leen studio fii dem leen lii dem leen man la na doon waxal ticket yi bi bi show bi bi ñuy def road show bis boobu la ticket yi di door a génn boobu xanaa show bi ay juróomi fan la des xaw ma boobu show bi ñetti fan la des ci la door a génnee ticket yi jour bi mu ñuy yóbbu ci borom ticket yi xaw ma naka pour ñu defari ticket yi kooku dafa ni ko fii mu nekk nii comme yi nuy def band nii yépp jeex na léegi ay këyit dong moo fi des kooku ni ko yow danga nga léet lan moo tax nga bàyyi ba léegi nii nga door a def ticket si mu ne ko loolu du sa problème yow daal dañ la sant liggéey def ko loolu du sa problème kooku ne ko amul problème léegi man dinaa try bu fekkee dinaa mën a am bandoo ma def ko bu ma amul bandoo yi nag su ma wëree ba sonn ama bandoo ma def leen defaral leen ay ay ticket noonu normal mu ne ko waa ndekete kooku sax tuuti la ko joxoon fayu ko lépp bi show bi desee trois jours Ali joxul One Pac man mii la jox ticket sama ticket bi samay signature ñoo ci nekk man la teg 300 ticket sama loxo avance ticket restaurant Sophie Dieye bu Bakaaw foofu la ma ko joxee ay seede nga fa 300 ticket la ma joxoon te Ali delloo naa ko ticket yi lépp ba jox ko sax lu ëpp ndax ticket yi sol fraise jëndoon mayaat ko One Pac na na ko maye wan pack daf ma ko joxoon jour boobu aw ma jot aw mënuma koo yóbbu di ko maye ji jour yooyu dama delloowaat aali bi ma koy delloo 300 ticket yi maa ngi ko njëkk a fekk restaurant abukan xaw ma kii kan Seydi kan jox ko ñaari ñaari ñaari paquetu ticket seen réunion boobu bis boobu ñoon ñoo ngi doon def réunion kii mitin moom ak moom ak kii naka la tudd promoteur yi ndax seen seen show bii di ñëw ma jox ko ñaari ñaari buggu ticket fan yi paase bi ma jógee Casamance ñëwaat fii yóbbul naa ko ñeenti tikke yi tamit 300 yëpp mat yóbbuñu benn ticket champion sound ndax dafa ne woon balaa ñuy seddoo dara nañu indi tikke yi ba mu mat fekk dañoo jël dañoo One Pac dafa jël 300 kii 150 ticket ndax tikke yi 50 50 la woon One Pac jël ñetti ñetti ticket buggu ticket yóbbul ko xatib jaane fekk ko fa mu jox ko booyam bi nekk ci weta bi bi wax ak bi nekk ci xatib ni ko joxal ma ko xatib kooku joxu ko kooku gisul joxu ko xatib léegi ñun bi ñu jógee bi ma bi ñu wootee pour affaire seetul affaire ticket yeeg yooyu kii daan nañu champion saamu daan nañu nañu indi ticket yëpp ba mu mat ñu door a xool naka la ñuy def ci lañu ñu bi bi ñu ma jógee dakaar Sénégal rek dama jubali direct ci xatib jaane fekk dama njëkk a woo xatib jaane xatib jaane ni ma one pack de boobu fekk na one pack mi nga xaw a feebar ma woo ko ne ko af kii de daf ñu doon laaj affaire ticket mu a man de gisuma ticket waaye man One Pac dama ko yàgg a jàppale te xaw ma te te boobu jëflantewul ak sax champion sound One Pac sama boy la day ñëw fi ma di ko jàppale. man ne ko man de affaire ticket yi moo taxoon ma lay woo waaye kon bu ma ñëwee dinaa ñëw mu ne ma man xaw ma ban boy la ko ci jox ndax booy bi waxuma dara man ne ko su ma ñëwee dinaa jël si ticket yi bi ma ñëwee ba dem ci xatib jaane maag One mu ne ma man dama suma laa gis nanga def ñu nuyoon te noonu mu ne ma man sama jabar sénégalais la ba ñu taxaw noonu photo may dem mu ne mu ne booy bi joxal ma sama sama sama jabar bi paas kooku jox ñu 5000 daal ñu jox ticket yi daal ticket yaa ngi nii génnee ticket yi ba mu mat jox ñu ko ci ëllëg sa bi xam naa champion sound day football ak ñoom xatit jaane xam naa dafa dem kii na ko wan pak ñëwoon na fi rek mu wooñu ci saa si moom dafa tiit bëgge wooñu ci saa si naan waaw xatib jaane nee na ma jël si ngeen tikke yi jox na leen xaasu tikke yi ma ne ko ban xaasu tikke ma ne ko tikke yaa ngi nii xatib si xatib jaane gisul woon sax tikke yi bi ko wan bag ni ko yow lan la lan dangaa bëgge lan moo tax nga may woo yow may xam xatib jaane xaw ma la xatib jaane daf maa yàgg a jàppale li ma jox moo tax nga kii mu ne ko noo waxuma ci woon dara dama la doon xamal ne rek déggante naa xatib jaane daa dee pare ci wax jooju léegi affaire stade bi tamit ñu dem vidéo video yi ñetti clip yi ni def yépp ñun ñoo ko defal suñu bopp ndax buñ ko waxee mu ne tey suba tey suba tey suba ba ñu ñu ut suñu video vidéo man kii mu defaral ñu ñetti vidéo mu bàyyi ñu fekk promotion bi boo batelewu ñoo nit waxul ak kenn bàyyi ñu fi dem dem Algérie xaw ma fan nañ ay ay partenaire am dañoo sàcc xaw ay partenaire am yu mu fi indi woon dañoo sàcc seen xaalis moo tax amul jot dafay ànd ak ñoom dem Algérie xaw ma ñaata ñaata xaw ma weer xaw ma ñaata nanguwul ñëwul ñu ñoo nekk di dawal promo promotion bi ñu dem bañ ne suba la suba la euh, show bi ma dem stade ba fekk jour boobu dama ànd ak ay nit sax ne leen gunge leen ma ma xool ndax ñu ngi placer bagage yi walla biñ demee gardien bi daan ne ma fii kenn amul amul show ci place basket bi la show bi nekk ma ne waa loolu naka la mën a demee te ñun ñu topp àdduna bi yëpp ñu naan leen stade stade te ndekete du ci stade bi du ci la du ci fil bu mag bi ma woo ko ma woo champion sound ma ne ko waaye champion yow lan moo tax ñu dem ci fil ngay ngay def kii bi fil bu ndaw bee mu ne mu ne ma waaw stade bi nee nañu dañ koo baan Sénégal sax lañuy ñuy footballé match bi bi am am tay ni daño ban stade bi pour affaire musique xalat len naka ngay jëlé sa xaalis xawma ban septembre daw nga avance avance stade bi bañ signé bu na da nga avance stade ba signé lan motax programme bi ñu né suba la ñu naan la do teug ci stade bi lolu xel nangunoko bu féké yow fay nga sa xaalis ñu jox jox la ay yu lèr bu nee la doo tëgg ci stade bi doo dem ak ñoom yoon mu ne daal dañ na ko doo doo doo doo kenn du tëgg musique ci stade bi nee na laan bu ndaw boobu ci bis boobu la ko lijjanti mën na ko yow xam nga ne wan Pac yëgul lii mën na ko One Pac bu yëgee na ci laan bu ndaw bi nga ko yóbbu est-ce que show bi dina am sax mu ne ma bu amulee loolu man du ma wàññi dara ni la ma ko waxee ni ma show bi bu amulee man wàññiwu ma dara jour boobu ñi ma àndaloon sax mais libre laa ko def ñi ma àndaloon ñëpp naan ma kii baaxul ndax dafa dañoo dégg sama wax ak moom mu ne moom loolu bu bu show bi amulee moom wàññiwu ko dara ndax nee na moom mi ngee mi ngee li mu yor ñun lay jàppale ma a ko ñun lay jàppale ba affaire yabaate yi wax ba àdduna yëpp naan stade bi stade bi ndekete yow ci ci feenee nga yóbbu affaire yi su guddi gi la woo One Pac ci guddi gi la ko wan Pac door door a yëg door a loolu man maa njëkk a yëg One Pac ci ci terrain basket ba la yóbbu affaire yi loolu yépp wan pak ñu bi jour show bi du toogu du dara loo wax mu ne joxoon waxoon naa nii nañ ko def nii defewuñ ko nii ba sax artistes yi doon yéeg bu ñu yéegee maaj bi du wax ba esti bi mu yéegee mic bi waxul ma dem ba ci moom ni ko esti naka lay ñëwee artiste bu mag bu tool na moom ngeen di couper mic bi lii affaire disrespect la mu ne ma loolu sama yoon nekku ci boo yi ñoo jeexal batterie ma ne ko yow wan ma ne ko yow champion lan la booba xanaa xam na ne yàqu na rek yàqu na mi ngi def lu ko neex li tax ma génn wax nag man dama fekkee lépp ndax demoon na ba mu gi moom daawul wax ak One Pac man man la daan waxal bi mu ne bi affaire yi jeexee nag mu ne ñun dañoo dem xaw ma ñaata weer nangu ñoo ñëw ci dëkk bi moom moo nanguwul gisanteeg ñun ak bët bu ñu ko woowee du nangoo jël nanguwul gisanteek ñun bët show ba ba tey nii du dox ñu dox bu ñu demee fi mun am fii place nii ci Sénégambia bi sax nee nañu toog na lu yàgg du fa ñëw bu xamee nañu nekkuñu fa dong la fay ñëw bu ñu fa ñëwee duñ ko fa fekk lépp nag nanguwuñu woon a wax ndax aali lañu dafa dem ba mujj gi mu ne moom daal waxatul ak wan pak nañu nañu dil ak aali te wanpag dafa rus aali ndax wanpag laata muy way aali moo ko daan jox ay dàll mu koy jaay aali koto kiiwam la garaawam boo xam ne ni da ko rus torop saa bu wanpag bëggoon wax wala dara aali moo koy moo naan ko déedéet xool ma ci ndax dañu dañoo séq démb te tey dikkul moom mu xam ne wanpag dafa dafa rus aali ndax li mu daan business ak moom mu koy jox ay yére ak ay dàll muy dem di jaay di indi di ko delloo xaalisam mu jël ci occasion mu ne léegi nañu dil ak Ali Ali moom xam xam na waxal yàlla indil naa ko ticket yépp ba mu jeex Ali moo ne joon calmer mu ne jël li mu yore ci xaalis nangu ko woon sax laal ndax ñun li ñu nekkoon Casamance nanguwul woon laal sax li mu jot a récupérer ci xaalis ndax nee na borom générito bi da koo yoree turam moo fa nekk te borom bu générito bi sax mi ngi ko bëgg a yóbbu police Ali nee na stade bi noonu kii jë kii kii turam la ko jëlee turam turam la jële champion sound turam turu Ali la bind ci affaire stade bi te ba tey xaa mottali stade bi mottali ko nee na turam moo fa nekk tickets yi joreen na borom ticket borom ticket yi tamit turam moo fa nekk moom daal lépp lu demoon nekkoon ci affaire kii bi affaire show bi rek ci turu aale la ko def dafa ko moom sax ci turam ci turu aale la ko def aale daal nañu sarax leen ma ngir yàlla ngeen xool ci man man dinaa wax ak champion lépp lu ngeen lu siy seen àq lu ma leen war a jox ci xaalis bi ma jox leen ko waaye fii mu nekk nii bor yi moo ëpp sax xaalis bi fi nekk te champion nanguwul génnee dërëmam nee na léegi moom moo war a jël xaalis boobu noonu faye ko yenn bor yi. pag ni ko nag kon man dangeen may neenal nii mu ne ko ah loolu man xam naa ne loolu du yoon duma la neenal waaye bàyyi ba ma waxtaan ak champion ñun champion xamuñu sax këram fu mu féetee li muy bokk bokk ak One Pac mii xamuñu sax fan mooy buntu këram mosuñoo dem këram xamuñu fuy këram te li ba mu ne cëpp am rek ba nit ñi gis ko ñëpp laa la wax dañ ñoo woo nañu lan moo tax ngeen di jëflanteeg champion biñ demee ba ba show firi ba ba firi bi ba mu yàqoo ci la xëy suba bi wan pak ne moom dootul waxate champion ndax lii champion dafa bëgg a yàq carrière am si la champion daan ne nañ def nañ def kii contrant wan pak mooy jël six percent yi moom mu jël kii bi fotti bi waaye contrat boobu sax wan pak dafa ne ma woon duma ma ko du ma ko duma ko du ma ko ndax man bi ma soxlaa stade champion sound moo ma jëlal stade ñépp ne ko signer contrat bi ndax ëllëg a tax One Pac dafa demoon tëdd ci suuf na du signer contrat bi mu ne ndax kóllëre mu ne ko déedéet signer contrat bi ñu signer contrat bi te contrat boobu sax tax na ci ki nga xam ne ni moo doon manager One Pac nekk America woo kooku ne kooku da ko woo mu ne ko One Pac dama ko signer contrat pour mu may liggéeyal pour yàq yàq diggante boobu rek de mu ne ko man xaw ma manee de One Pac nga xaw ma waaye One Pac ñun ñoo ko jël léegi ci ci big event show boobu contrant boobu ñu signé pour show bi mu ne moom moo jël One Pac pour big event lockdown bi bi bi bi ñu directeur bi ñu bi ñu kiiwu boosu lockdown bi woowee daal na man naka lay nekkee di jëflanteeg yéen ba pare ngeen di dem di signé champion sound contrat ma na ko champion sound moo la wax loolu mu a man moo ne ma def leen si ne xaw ma pour atu yàlla pour ngeen koy liggéeyal ci big event suñu contrat ak kooku noonu la yàqoo champion daal nekku fi lu dul mag la na suturaal boppam nag nekku fi lu dul di jaxase nit ñi bu ñëwee ni leen lii ndax moom ña muy àndal sax di di di fré di leen fréquenter bu weet bu weetee keneen wax leen lu bon loo xam ne ni bu ko kooku yëgoon dootul ànd teg wan dootul ànd teg champion sound affaire stade bi jaxase bu nekk jaxase na teg pak ak ak waa waa waa log lockdown na seeg pak ak ak ak jaañ jaxase na seeg pak ak ki nekk eh, Cheikh Ndiaye bu stade moom daal day nekk di jaxase rek ku mu gis nag ñu dem fa vidéo ak moom wala dara sax mu ne lan moo tax ñu dem fa ñun seen Sol Fraser bañ koy xam dañoo dañoo xam champion sang wala bu ñu xamee champion sang sax jaaw ñu jëflanteeg moom mësuñoo jëflanteeg moom mësuñoo jëflanteeg moom affaire bi daal noonu la demee champion sound lekkaluñu ko benn dërëm ba pare mu récupéré xaalis yëpp ba pare toog ci ma wax mu osé naan dafay génn naan dafay def vidéo naan daf ñoo jàppale yóbbu nañu xawma ñaata hundred thousand xaw ma la nag lan mag la xoola li mu dund dootul dundaat lu ko raw lu ko lu ko ëpp dee la gën a jege ki na wax dëgg ay nan wan pak dafa soxor mom kan moko gëna soxor mom mi nga xamna ni ñaata carrière artiste la ñun ñaata artiste ñoo wax ne ma di len di wax li len champion sound def ñaata DJ moo ñu wax li ñu len champion sound def ba ñi koy yëkkatil wéñam yi sax ba bañ bañu champion dañ ñu wo nan ñom dañ dañuy liggéey ci mom ba sonu du len jox sen ak motax ñepp nga roccé ku dem kon moom war na toog fii di wax soxoru One Pac ban soxor la One Pac One Pac dañ koy def moo tax muy génn di wax buñ ko bàyyee def du génn ci sax di saaga kenn waaye di kii kenn waaye bu luy dëgg man dinaa génn leeral ko ba mu leer ndax fu mu dem lu muy lu muy def maa ngi teew lu muy wax maa ngi teew damay fekkee lépp nit ñi nag xamuñu ku wax dëgg ku xamuñu ku tooñ ku fay lañu xam champion sound mën na tok lu nek mu mu mu diggakaak nit ñi ba paré defu ci dara xal nangu na nga jël stade bi fay sa xaas ba paré ñu na la do fa teggé do ko fa teggé xaasu affaireu ticket suñu ticket yépp mu jël ko kuñ kuñu xam ku baax difa dem ay ay ay mayo beek ñépp fuñu wara dem bu fa démé ticket lamb bi la fay jaay danaan la dañ daf lay woo suñu kanam waa One Pac mi ngi fiy ñëw nangam ak sàngam day jaay tikkeem dafa am event bu demee buñ bu demee te ñun demuñu mu jël ticket làmb yi jaay ko fa ñun ñi ñu waxaloon téléphone ñëpp war leen yóbbul ticket ticket làmb yi la fa jaay ñëpp ci làmb ji la ñu ñëw ñépp ci làmb ji lañu ñëw ticket yëpp mu jël ko jaay ko ci suñu tikke yi ni waroon a jaay ñun mu jaay ko autorité yi mu jaay leen ticket làmb ji ndax lenn moo ko naqadi woon mësoon na bokk ak maam jaara benn event maam jaara pose event ba pare moom it mu pose event benn free show wan pa génn ko naka lan moo tax kii di jàppale ndawu dëkk bi ba pare yow ngay yàq bu bu defee événement yow nga jël naan da ngay frichoo da nga soxor loolu woo tax xam ña mu wër naan leen dinaa yàq euh, carrière One lépp ñëwaat na ba ci ñun ndax moom comme que dafay wër di wax fii kaay ma may la moo kaay ma wax la moo gën a yomb kaay ma may la ña mu wax la loolu yëpp ñëwaat nañu ba ci One wax ko ko na One champion sound yaay dugg ci mom da nga def ne woon dalay jappale wu la ndax da ngay da ngay da ngay live ndax limu mu tombeek jël datu maam jaar neena dina yak sa carrière te loolu nga bëgg def ay mëno ko yak ndax li ñi wax taal bu yàlla taal boo ci sànniwul mat mëno ko fay wan pak ñaata at bo ba mu génné ba tay ku nekk ngi wan pak wan pak ku ko bëgg defal dara sax nit jaar ci suuf ne ko bu ko defal te bo ba mi ngi dundu mi ngi dund yàllaa ngi koy wërsëgal li muy kenn du ko gis ba yéen a ko sarax mi ngi dund mi ngi mi ngi lekk mi ngi naan mi ngi tëdd fu baax kon tey ngeen a noppalu ci mbiru Wampag kii yàllaa ko yàllaa ko def ni mu mel nit mënu ci dara soxor mënul ci moom denn booboog léegi ñoo ngi am suñuy show ñoo ngi sant yàlla xëy na musique moom jàppale da cee am waaye ku ko ci mënulee jàppale ngir yàlla toogal sa boor ndax gis nga loo waxal nit te amul bu keroog nga yëmal xiyaam balaa ngaa jàll dinga ko digaaleeg yàlla kon ragal leen yàlla te xam ne yàlla am na te yëmal xiyaam mi ngi ñëw de fii mu nekk nii dee la nit ñi gën a jege surtout nag Lamine Thiam mag mu tool na moom génn fi naan dafay defalan defanteeg di wax loo xam ne nii amul dafa am ay doom nag na rus boppam na rus na na rus rus ay doomam dégg nga yow sa hundred taw buñ ko yóbboo di nga kii yow mi nga xam ne dangaa fi fi tiit yow ba nga jëw ba ba ñu waxee ci affaire affaire dem kër maam jaara sax yaa ne dangaa yóbbu attaque police ak yow dangaa tiit ay naan yóbbu naa leen police xaw ma nag yow yaa yow yaa fay dem wax ak ñoom yëgal leen show bi yóbbu naa leen police ndax dañ maa yoreel lu yaas waaye baal naa leen nangam sàngam yoreel na benn dërëm dangaa fi fi tiit yow war ngaa yow génn di wax war nga genn di wax nan wan pak dafa soxor soxor kay ci yow la fekk bax yow mi nga xamne ni ñepp ñu wo wax ñu loolu ñu ne xaar ñu traay ak yow suma waxe ñu ne dama genn di wax dina wax ndax li ngeen bëgg def ci nak mom dama ko dama ko dul nangu ndax nit du ngeen ko top ba sës ko ci miir bi nit kenn du ko topp ba ci ba ci miir bi wan pa gu melee neneen démb tey melu ko tey ji man maay taxaw xeexal ko ku ci wax rek boole ci jabaram ku ci wax boole ci jabaram nit mënul wax ak moom ñaari baat te boolewu ci jabaram man nit koo xam man damaa jóge fi famille bu baax dem leen Sénégal famille bu baax laa jóge man duma taxawaalukat duma tambaambalukat man dañ ma fekk fañ ma war a fekk takk ma kon jàppale sama jëkkër te suñuy famille sëy dong la ñu xam jàppale sama jëkkër rek moo ma war kon waaye ku ci wax rek foog nga laaxaale ci jabaram xaw ma kenn Gàmbi moo ma fi indi moom mësumaa ñëw Gàmbi moo ma indi Gàmbi kon kan laay xam ak kan laay àndal ku dul moom moom laay àndal fu mu jëm damay ànd ak moom ndax yu mel nii wa tax yu mel nii wa tax ndax ñoom gis nañ ko ay laayafam yu bëree gi rek moo tax ku jox sosal ko naan waa lu lu ki yéen ku leen laayafulul ngeen naaw ndax yéen du ngeen wax katu dëgg riyeelu leen riyeelu leen yow bañoo ba dañ demee ci Shadow di defar ticket yi ticket yi yaa ngi naan Shadow defaral mu ko ay ticket yu baax ndax damay bañ mu laayefal ma yow boobu xam nga ne yow di nga daañ la laayefal ndax yow jubuloo lépp nga jël ko def ko ci turu aali aali moo taxoon ñuy bañ a génn wax rek ndax moom li mu seq ak aali sax moo tax ñu bañ a génn wax